bis bu barkeel di conférence bu mag fa tabarakallahu di ko yëgal mbokk jullit yëpp ñu ni bis bi kañ lay am ñu ni xanaa samedi 26 mai incha allahu taala ci Pikine wàqinaan de quartier mbaalo der incha allahu taala ñu ni nag bu nu xëyee daan wàcce alquranul karim ñaanal jullitu yàlla yi fàttaliku ci sunu góor gi nga xam ni mooy cheikh basir ibnu arabi yu li ak mboolem ku nekkoon ci daara ji ak mboolem jullitu yàlla yi te génnoon àdduna bu ni ci noppee nag incha allahu taala ñu daal di dugg ci wàllu conférence bi kanay def waxtaan wi ñu ne sunu soppe sunu xarit oustaz Abdoul Aziz Fall incha allahu taala mbokku julli di bis baa ngoog ñu ngi koy yëgal jullitu yàlla yi waaye nag balaa boobu fa tabaarakallaahu ku ne xam na ni lu yëngu am na nu muy doxe ñu jox ki nga xamante ni nii moom moo waral coow li incha allahu te nekk ci bopp ba mu wax ñu bis ba nan la war a demee muy oustaz Massila Kane aoudu billahi samii alalimi min alsheytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala jamici alihi wa ashaabihi wa man ihtada bi hadi ila yawmi din tabaarakallaahu jërëjëf sëriñ maam Ndiaye eh, loolu nga wax rek mooy li nekk bis la boo xam ni ah ginnaaw bu ñu nuyoo jullit yëpp tabaarakallaahu di leen ziar di leen ñaanal jàmm bis la bu ñuy waajal di bis bu ñu yàgg a def eh, tabaarakallaahu mu aju nag ci daara ji nga xam ne eh, defe naa ni ren ji mooy ñaar fukkeelu at ak juróom-benn daara ji di sampe di jàngale diine tabaarakallaahu ah sunu jigéen ñu baax ñii nga xam ni ñenn ñi sunuy yaay lañu ñenn ñi sunuy jigéen lañu ñenn ñi sunuy tante lañu tabaarakallaahu nga xam ne amul benn yoon xeej ak seen murit yaag tiijaan yeeg xaadir yeeg laayin yeeg ñëpp même ñi nga xam ne sax dajaguñu tarixa ñu ngi ci biir di jàng seen wàllu diine ñoo dem ba xam ni il faut ñu partager li leen yàlla defal te mooy woote mbooloo ñu ñëw tabaarakallaahu ñu sédd leen ci cër bu rëy boobu muy alquran ji ak njàng mi ñu ni nag tabaarakallaahu conférence bi ren fa mu daan jaar lay jaar ni ko maam Ndiaye waxee tabaarakallaahu ah lépp li nga xam ne tamit daan na ci am ba tey dara dara dañu ci ah di ñaan nag tabaarakallaahu ñëpp rek ku dégg sunu kàddu xam ni ah sa bés la ku ci ne dañu waroon ñëw teew ak teew ci sa kanam wax ak yow ah euh, yëgal la ko saafonteeg yow bu demewul noonu itam tabaarakallaahu ñu ngi jéggalu ñëpp ndax bis bi day bis boo xam ne jullit yëpp a ko bokk. tabaarakallaahu muy bés boo xam ni nag xam nga lii ba ñu ko dalee def yàgg na te lu mel ni kenn du ko def réussir te amuloo ay nit ñoo xam ni ñoo nekk sawet di la jàppale kooku ki ñu ciy jëkk mooy alxaaji Samba Cheikhou Dia di directeur Lakufa nga xam ni moom moo jël daara ji taf ko ci boppam bëggal leen boppam di leen jàppale ci lépp fu ñu toll mu tollu fa ak ñoom kon tabaarakallaahu tey moom moomu moom la ñu ko dara jaale ak personnel am boobu muy waa Lakufa waaye tamit comme ni ko sëñ Maam Ndiaye waxee Cheikh Bachir Ibnul Arabi lii ba muy wér mosu koo manqué ah ba yàlla dogal mu tële itam dañ daan def turam ci carte yi ba yàlla dogal ren conférence bi fekk ma nga ca barsax ñu ne kon jaadu na yàlla na kóllëre la ñu fàttali ko ñaanal ko yàlla ñaanal yàlla bokk yi nga xam ne tabaarakallaahu ñoo wàññi ko ak moom e tabaarakallaahu sëriñ Aïssa Touré itam dégg ngeen ko ci yeneen bandi annonce yi ci wàllu alquran di nga xam ne nii sëriñ Abdou Aziz Diop bii nga xam ne tey moo nu ciy wéttali suba ngoon ci njàngale mi dina nekk ci peggu sëriñ Issa Touré tabaarakallaahu boo ko jotam mayee ñu wàccee kaamil jàng ñaanal ñooñu tabaarakallaahu bu bëccëgee nag boo heure bi jotee nag entre 9h 10h nag conférence bi démarré bu ñu demee ba ca cet la nañu ko daan defee ñu def tirage yu aj màkk bi amaana sax dina jaaxal ñu bari waaye tirage bi dina am système ba ñu koy defee ak nañu koy euh, organiser waxtaan nañ ci xalaat nañ ci incha allahu tirage yu màkk boobu dina am kon ñu ngi woo mbooleem kuy dégg sunu kaddu mbooleem julit ku dégg daal euh, annonce bi nga jàpp ni mooy sa carte bu carte yi ak siwul ci yow loolu la ñu amoon lu ñu leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. fa tabarakallahu xaaji masilla jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm ñaan yàlla defal leen jàmm defal leen sutura yeggali ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mbokk jullit yi kenn ku nekk xam nga ni ku sut dañ laa tingoom fa tabarakallah te ku xam xaaji masilla kan dégg Abdoul Aziz Diop. kii nga xam ne ni jàmbaaru Cheikh Al jàmbaaru diine ji di jàmbaaru tariq bi di jàmbaaru ñëpp fa tabarakallahu di jàmbaaru jigéen ñi nga xamante ni ñoom lay àndal di liggéeya ndong ci wàllu daara ji kon nag ku yor ay njaboot fa tabarakallahu yoon la nga feeñal la nga xam ne ñoom nga ànd ak njaboot yi ñu jox Serigne Abdoul Aziz Diop mu wax nu nan la daara ji doxee ci digganteem ak sunu yaay booy yi bismillah waaw bu ko defee asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu àdduna bi yëpp di leen di sof rek ci li sang yi sof di oustaz ma Masila Kan ak sëriñ Maam Ndiaye di bis bu màgg boobu di suñu bisu yaay yi nga xam ni ñooy ànd di wétalikonte ci daara ji nga xam ne ni ko sallallahu alayhi wa waxee ni jàng du wees minal mahdi ilal lahdi eh, tabaarakallahu ñoom ba ñu yégee ni war nañoo xam seen wàllu diine ndax yàlla kenn du ko eh, jaamu ta xamoo ko ndax faarifu ni qabla an taabudu ni bala ngaa jaamu yàlla da ngay xam naka nga koy jaamoo moo tax tabaarakallahu ba ñu yëgee ni daal eh, mun ñoo jaamu yàlla te dañoo xam seen diine ci la ñu ñëw ci daara ji nga xam ni yàllaa ngi dogalee mu jaaree ci loxo oustaz alxaaji Masila ñu ci wéttali konte ak ñoom tabaarakallahu àllarba bu jot ak altine bu jot ñu ñëw fii di jàng seen wàllu diine bu ñu jàngee ba julli tàkkusaan bokk waxtaanee suñu wàllu diine Euh, lu tolloog fanweeri minute wala waxtu bu ñu paree tasaaroo noonu daal lañ koy doxalee tabaarakallah waaye nag di leen yëgalaat bis boobu xam ni le 26 mai la incha allah di ko ñu yëgal mbokk yëpp ak am di jàmm yëpp ndax bis boobu suñu bisu ay yaay lañu kon yàlla na ci yàlla daf tawfiq bi jaahi rasul sallallahu alayhi wa sallam fa tabaarakallahu oustaz Abdoul Aziz Diop yal na yàlla barkeel kàddu yi rafet na yal na yàlla sàmm aar nu fekke waat ko at yu bari bu ko defee mbokk yi tabaarakallahu kenn ku nekk xam na ni daara ji bi mu dalee conférence ak léegi toll na ci ñaar fukki ak juróom-benn ci ren waaye yàlla dogal lépp loo xamante dañ ko sos ngir yàlla waaye kat ba nee na dafay dem ngir yàlla waaye lu amul ngir yàlla du dem ndax yàllaa ca newul kon kenn ku ne xam na ni lii yàllaa ci nekk ba tax na ci biir ñaar fukki at ak juróom am na lu leen dem ci biir muy fukki at ak juróom chaque jour ñu tiire ca biir màkka jël ca kenn mu dem mottali ji farataam ca sallallahu alayhi wa sallam jaar màkkatal mukarram fa tabarakallah def farataam ziar sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal jullitu yàlla yi kon loolu barkeel rek moo ko mën ñuy laaj nag di jox kii nga xam ne ni mooy yaayu daara ji soxna nen ne gàlle lañu koy wax bu nu ko joxee nag kàddu gi mu wax nu ndax loolo ren dana am am déet soxna Nene bismillah billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li xawli ginnaaw bi ñu santee yàlla subhaanahu wa di julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem jullit yëpp ci niveau national ak niveau international ñuy wax nag ci kàddu yi ci kàddu ki nga xamante ne ni mooy présidente bi di yaayu daara ji mooy Adja Ndeye Jojo Diop ci kàddoom la ñuy waxee ak bureau bi yëpp ak euh, waa daara ji yëpp ci seen kàddu la ñuy waxee euh, euh, daara conférence bi nag bi nga xamante ni nii moom lañ dëgmal di la le 26 mai incha allahu rabbi moom la ñuy lancé appel suñu mbokku jullit yi rawatina nag suñu mbokku jigéen ñi nga xamante ni nii ah ñu ngi ci ci gox bi ak ci département bi ak ci Sénégal ak milieu international comme ni ma ko waxee rek comme suñu oustaz Massiré Kane dafa jokkook international ak national yëpp ñu ngi woo ñëpp di leen lancer appel nañu wuy si si conférence bi di leen xamal ni conférence ren bi euh, mook conférence yi nga xamante ni jaar nañ fi yëpp presque benn la mais am na benn innovation boo xam ni am na ci euh, ci mën naam wàllu organisation bi organisation bi nag mu ngi tëddee bu comme niñ ko waxee ñoom bu ñu xëyee dinañ jàng kaamil ñaanal way dawlu yi nga xamante ni nekk nañ fi ak suñu papa ibnu ba suñu papa Bachir li ibnu ibnu arabi euh, ñu ñaanal ko ci moog way dawlu yi nekkoon ci daara yeeg ci ci adduna bi yëpp ak képp koo xamante ni ñoom jiitu nañ leen ak ñi ko fekk ak ñi leen fekk yëpp ñoom la ñuy ñaanal ci bis bi bu ñu paree jàng ay xasida xasida yi nag comme ni ko suñu ustaas yi waxee dina nekk xasida amul xaaj seen xasida yëpp la tiijaan murit xaadir laayeen kenn ku ci nekk di nga ci gis sa bopp parce que daara ji ni ñu ko waxee noonu la tëddee suñu oustaz Abdou Aziz Diop moom aussi ni mu waxee euh, njàng mi noonu la commencé loolu moo indi conférence bi tey parce que nekkul ni dañoo toog ba yàgg rek am yëg-yëgu bëgg def conférence di ko def njàng mi moom mooy jiitu conférence bi door a ñëw mais aussi jigéen yi dañu am lu ñu xam ne dañ koy faral di def dañoo amoon yëngu-yëngu yoo xam ne dañ ko doon def toujours tey dafay continuer incha allahu rabbi ñoom ay mébét yoo xam ne aussi def nañ ko ci daara ji te egsee guñ ci muy sunu institut islamique bi nga xamante ni moom moo nu gën a soxal di lancer appel bailleur de fonds yi képp ku mën a jàpp ci institut bi nga ñëw jàpp ci. billet Màkka bi nag ren dafa am suuti changement ak billet Màkka yi nga xam ne doon na fi jaar yàlla dafa dogal dañ daan tiire ci at bi nga dem ci at bi mais bi yoon yàlla dogal na ni bu ñu tiire nit ki dañ koy may mu waajal ba déwén. su waajalee ba déwén nga xam dina mën boppam su ko defee mu dem màkk dellusiwaat loolu daal mooy li nga xamante ni doon nañ ko doon nañ ko wax. su ngeen gisee nag ñuy def euh, euh, lancé appel ci ñi nga xamante ne ni ñooy bailleurs de fonds yi daara ji euh, ci alxuraan rek lay dox yàlla dogal na loolu ndax ñi fi nekk ñëpp dañoo takk seen boppu am pas-pas ñëw jàng seen diine. ba pare nag jaayanteeg seen borom ci biir jaayanteeg seen borom boobu moo indi nag ñu bëgg taxawal benn institut islamique boo xamante ni projet bi bis bu ngeen ñëwee ci conférence bi di ngeen ko fa gis ñoom nag ci daara ji seen wàll commencé ni comp ci seen bopp di ci def waaye nag jël dajul suuf ndax mënuñu lépp moo tax nag ñu tàllal yàlla loxo tàllal leen tàllal bailleur yi bailleur yi nga xamante ne am nañu moyen ñu ñëw jàpp ci te yàlla rek tax bàyyiwuñu fa tabarakallahu jërëjëf soxna ne ne gàlle ba yal na yàlla barkeel barkeel mboolem ñoo xamante ne yéen a ngi ànd ci liggéeyal islam bi fa tabarakallahu kon nag mbokk julit yi bis ñu ngi koy fàttali ñëpp samedi lay am 26 mai incha allahu taala fii ci pikin ñu ngi ci woo julitu yàlla yëpp incha allahu taala xanaa rek liñ ci yokk mooy lu ndaw mooy fii nga xam ne fii la soxna si daanelee kàddoom muy kenn ku nekk xam na ni daara ku ci nekk soxla nga ndimbal ñoom nag góorgóorlu nañu ci li nu am ak kus néew taxaw ngir yàlla bëgg a waajal daara joo xam ne institut islamique Mouhamadul Amin moom la ñu ko duppe fa tabaarakallahu ñu ñaan nag di tàllal loxo. mboolem koo xamante ni ni rek yàlla dimbali na la baaxe la ngay dimbali kaanunu islam ngay dimbali julitu yàlla yi ñu ngi lay tàllal loxo di la ñaan dimbal ngir yàlla ak jëmmi yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ku xool xam nga ni daara ji am na ay xale te kenn ku nekk xam nga ni xale yooyu ñooy doon mag yi ëllëg kenn ku nekk boo xoolee ci daara ji am na ay mag te nawet mi ngi ñëw tàngoor a ngi fi noor a ngi fi lépp a ngi fi te yooyu yëpp mënee su ko def ci biir ta nit looy def lu nekk war na ànd ak mu dal fa tabaarakallahu ñu ngi koy tàllal yàlla loxo di leen ko dénk yéen mbokk jullit yi képp koo xam ne yàlla dénk na la nga am ndimbal ak loo mën a am xeebeesul dara nga jàpp ci daara ji di institut islamique Mouhamadul Amin ku ko def incha allahu taala yàlla am na fay yàlla mi am fay yàlla na la fay mbokku julli ñu ngi tàllal ñëpp loxo ngeen baal ñu àq bis baa ngoog wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.